boo xoolee da nga xam ne kii am na lu mu manqué woon lumu mu man nag li sans problème ci wàllu làmb mooy guddi yi ñu toll diggante ba Gaye numéro 2 Tapha Tine dañuy bàyyi ndaanaan ni rek ñu wax ci seen xalaat ñun ñu bàyyi ba open presse bi jàll ñu la mu Mourtalla ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar ñaanal jàmm di la ñaanal sutura ak xéwal yi bare bare bare bare bëri loo bëgg yàlla na suñu borom defal bu fekkee ne mu gën ci yow Mourtalla ñu ngi lay nuyu. Fadam maa ngi lay fay Mhm. di kontaan lool ci jàkkaarloog yow. Mhm. guddi na waaye ma doon seetaan jàkkaarloo bi rek. Mhm. waaye man daal tey jii ma lay xamante ne la neuf point laa la andil. Hmm? Fadam. yaa ngi may déggam déggoo ma. maa ngi lay dégg bu baax mu talaan. génn góor daf ma ni seeka ak parce que yam léppi kàcc la wax day leer. wala déggoo ma. dégg de. Fadam lamb ji jeex na bu yàgg. dégguma. lamb ji jeex na bu yàgg. ah ko jeexal. lamb ko jeexal. lamb nan la ko Fadam damaa ragal tafaatin mu reefene. lan mooy reefene. tafaatin mu làmme ñu saf ay séeréer moytul ma ko. wala déggoo ba tey dégg ma la de bu gën ma jël de. dafa moo dégg mu naan li ma bëgg dégg li ma bëgg dégg ak li ma nar dégg nga dégg làmmiñu saf ay séeréer safaatin mu réefene moytul ma ko. Hmm? Fada maa la wax lii. tey ban tafaatin nga gis bu jàkkaarloo ak Balla Gaye numéro 2. tafaatin ma doon bëreeg Yékini Junior laa gis ci combat bu njëkk ba seen premier combat. nee naa la moo dégg Tapha ma dégg-dégg moom wax la bu baax a baax nee naa leen Tapha Tine gis naa ci loo xamante ni siin wax naa ko gars yi keroog ni leen Tapha Tine boo ko déggee làmmeñ wi reefe na saf sàpp ay séeréer xamal ni mbër maa ngoog te Tapha Tine laa gis Tapha Tine ma buddi woon Yékini Junior rek benn loxo ni ko réel ci suuf ni ko Tapha ko daane mun leen dama ko jàpp sam ko naax daw lali ko ko den bi mu réet ma but ko ba kaw fekk ko ci suuf tafaatin boobu laa gisaat tey. Mourtalla su ma la déggee da nga bëgg wax rek mu tafaatin daan na Balla Gaye ba pare. dara la Balla mënul ci moom. Mourtalla fii laa ñetti point laa la indil ci làmb ji man. maa ngi koy déglu. Bébé Saloum amul chance ci Jacob Balde. benn. soq bu daanul Maama Lamine du ko daan. Mm-hmm. man non neuf point laa bëgg neuf. waaw. incha allahu rabbi mhm. du ku nekk yaa moom sa xalaat. ñëwal. sama xel mi ku ko moom. yow. sama caagri bii nga xamante ne sii moom lay ndekkee altine caagri sama mbuusum caagri mi nga xamante ne sii ni moom laay ndekkee altine. waaw. soo ma tegaloon un ci Balla Gaye dee ma ko teg. moo tax lan moo tax bu ñu la tegaloon un ci Balla Gaye numéro doo ko teg lan la da ngaa ci Balla Gaye loo wala lan la. dama la ne tafaatin tafaatin dafa matoon mbër daa doonoon mbër ba pare manqué woon mais léegi daa mat mbër fanam yaa ngi may dégg wala déggoo ma waaw dégg naa la dem waay mu talaa dama ne ne nan dem ba làmb ji dimanche bu la neexee jàppal ba waar nga téye waar man mu talaa man dawuma coow ragaluma lool mu talaa lan nga gis ci tafaatin bare tafaatin lépp lu am ci làmb ci loxoom lay nekk Balla Gaye de mënul ci moom dara te la waxaat benn mbir nag boo xam ne nañ ko jàpp bu baax a baax tafaatin Balla Gaye daan Balla gay de wala làmb ji mujjee ci coow mais Balla Gaye de mënul dara ci tafaatin la ilaha dara la mënul ci moom te bula la neexee jàppal lii ngay téye nii man amu ci benn problème boo mu dugalee lënd bu làmb ji jeexee boo mu yóbboo waar nga waaru mais Mourtalla man dama bëgg a xam ak Balla Gaye de communication bi mu def lan nga gis ci Balla Gaye numéro 2 lan nga gis ci Tapha ba ne Balla Gaye amul benn sens ci kanamu Tapha lépp lu xamante ni moom la làmb ji soxla dimanche lépp li làmb ji soxla dimanche laa la wax ah li làmb ji soxla dimanche man ci sama gis-gis laa lay wax man la neexee ma leen ni téyal man gisuma gisuma fenn fu Balla amee sens ci kanamu Tapha Tine man maa gisul loolu man gisuma loolu Fadam. gisul Balla Gaye amee ci kanamu tafaatin man gisuma loolu man man Tapha bu daanee Balla Gaye du ma yëngatu du ma def Balla mu daan Tapha Tine indi surprise. nee naa la tafaatin Tine mu daan bëri gars yi mbër la woon mais du woon mbër mu mat mais instant bi Tapha Tine daa mat. Mm-hmm. wala déggoo. man nag dama il faut mu dugg participer jàkkaarloog yow wax la ni la man incha allahu rabbi tegal ma neuf points yooyu nga tegal ma ko man sama neuf points yi samedi ji dimanche dimanche nga teg neuf points yooyu noonu nga jàpp ko bu baax a baax a baax a baax bugguma sax ñaar ak ay nii neuf points laa bëgg. mais man mais man Moutala. waaw ah. guddi yi ñu toll fan la Tafatine tolloon ci làmb a guddi yi ñu toll fan la Tafatine toll. Tafatine dafa mat woon bëri ba pare yorul woon mentalité sportive. Hmm. dafa yot dafa matoon bëri ba pare tafaatin te te te yoruwul mentalité sportive instant bi tafaatin mbër mu complet la Balla Gaye di bëreel. te mu complet Balla Gaye mënu ko daan. non dafa complet ci lépp te nag ma moytu ne mbër moo xam ni bal tafaatin lépp lu Balla Gaye di indi tafaatin xam na ko ba pare may wax ak yow nii boo gisee ñu ñaan tafaatin waxut ak dama ne lu Balla Gaye indi tafaatin xam na ko ba ni ciix toog xam nga tafaatin day nax ñu bëri. ngay dégg na ñu bëri na tafatin lan mooy sénégal ay dafa tapet ñi dégg yoon tafatin dagal naa tapet kenn xanaa tafatin buy jéggi tali sax bu ko ab auto corné warul tam bu ko neexee du daw waxuma la ak bàll gay dee macha allah ak ni ko yàlla suñu borom def mais il faut nit ñi di comprendre ni gis nga nit di nga xam ci moom loo xamante ne si ni du la wax ju bari doo ko mën tafatin dafa mañ bëri yoo xam ni mën na ñëpp mën leneen daan ci wax mooduloo noonu la mel tafatin yomb naa daan ci ay wax mais jamono ji yombut a daan ci ab géew ay wax nit nag laa la wax te noppem jooju noonu tafaatin mënta noppi xam la mu xam len xaj ba mbaw na ko xamul xamut mais bu dimanche di ngeen xam noppi tafaatin di ngeen xam ne tekki mag duy nelaw aw xal gëmm na wante nelawul man Mourtalla maa la wax lii kon téye ko. Mourtalla lan la nga yaakaar ne lay indil Balla Gaye 2 ci biir géew bi bu 19h30 jotee. man dama gis ni mu guddeeg mu gàtt yëpp tafaatina moom. man sama ma gis-gis la la wax man du ku nek am nga sa xalaatu bop ya mom sa xalaatu bop waaw fi ak yow di la wax ni la sama tiagri bi nga xamanteni si ni mom lay ndékkee altiné ci suba la la boma ma 1 million ci Balla gay du ko ci Balla gay dara ci combat bi lu mu am. sans sam gisumako ci ak man loolu la lay wax man xana man moom sama xalaatu bop waaye ya ko mom way lima doy nak moy lan mu gudd mu gàtt mu gaaw mu yéex làmb ji mooy boroom fadam dama doon amul sens bu bëre amul sens fadam maa ngi dem ba baneen yoon jàppal li ma la wax man fii laa doon tàggali ko moo nekkoon sama dernière sortie bu dimanche téel nga yóbbu waar téye ko bu lëndee nga jàpp waar bi ni ko ci baret boo ma yóbbu waar bu lëndee nga waaru falaay tàqale ko yow maa ngi dem jërëjëf alaaji Mutalla mu baax mi jërëjëf jërëjëf jërëjëf tarfan maskuura ñu ngi lay nuyu baax di la ñaanal jàmm laa ilaha illallah